liggéey moom sant yàlla rek sant yàlla alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax mais fii nag moom war nañ ko mën a gën a yaatal quoi fii gis nga fii ni mu mel nii gisoo fii da ngay taxaw ci mbedd yi fu ne dañ lay daax wóor na yàlla di la saboob lu ne xam nga lool daal moom bëgg nan waa garage bi ñu taxaw ci quoi amuñu fun gaara moom gisoo gisoo ni ràññee nii te buñ taxawee fii alkaati bi dañuy génne kee ki monte fee dañuy génne ñu daal bëgg nañ ko ñu si jàppale ci année bi ñu jub si waaw nuyu sama yaay bu baax a baax nuyu sama soxna ak sama doom nuyu samay mbokk yépp di nuyu waa njege xam nga waaw di leen nuyu waa Dén ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm bu baax a baax. année bi ñuy dugg nii daal daal si dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabil alamin waaw année bi yàlla na dàq ci année yi waaw di leen ñaanal jàmm nag yéen seen liggéey rafet na lool wax dëgg yàlla. waaw lii daal moom bëgg na ñu yaatal ko bu baax a baax waa garage bi ñuy jóg wax ji xam nga ñaanal réew mi jàmm ñi ñëpp ñu am jàmm waaw ñi ku si nekk am sa yëfi ba kenn du sonal ken loolu laay ñaan waaw ñëpp am jàmm nag réew mi ñëpp am jàmm ñoom ñëpp maa leen di bonne heureuse année xam nga samay xarit samay mbokk sëveur samay waa écurie ak écurie jàkka jeeg ñoom ñëpp daal ñëpp maa leen xam nga bon bon heureuse année quoi waaw jërëjëf